bismillahi rahmaani rahim ginnaaw ba nu santee suñ borom subhaanahu nuy julli ci yonente bi muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di sant cheikhul xadim cheikh ahmadou di ñaan sëñ Muntaxa liggéey bi mu sumb te naalal ko cheikhul xadim mu eggale ko te ñu ànd ko ak moom ba mu yokk ci ay naari boppam di nuyu njabootu Xaadimu Rasuul gépp tàmbale ko ci waa kër sunu maam Cheikh Mouhamadou Moustapha jaar ci waa kër Cheikh Mouhamadou Fadil jaar ci waa kër sëriñ Abdoulahi Lahad waa kër sëriñ Abdou Khadr waa kër sëriñ Saliou waa kër Cheikh Mahamadou Lamine waa kër sëriñ Sidi Mokhtar ba egg ci sëriñ Mountakha ak ñañu bokkal sëriñ Touba ñëpp di nuyu Cheikh si di nuyu taalibe yi ak képp koo xam ne sa waajur Sëriñ Tuubaa gërëmoon na ko walla nga fab sa wàll sa waar bay ko ci toolu Sëriñ Tuubaa ñoo ngi leen di ziyaare ci bisu bu tedd bii nga xam ne bisu xaadimu rasul la ndax Tuubaa da koo sanc ngir lislaam te bokk na ci danaa fi eh, laaj ñetti laaj sax mooy la taxoon mu sanc dëkk bi mooy lislaam may laaj ndax am na dëkk boo xam ne lislaam a tax ñu sanc ko matagul xarnu walla ci lay toll mu nekk ñaareelu capitalu réew ba yeneen yi ci des itam ci biir waxtaan wi danañ ko laaj muy bi ci jëkk sax mën nañ koo wax mooy Cheikh Mamadou Moustapha na leen Serigne Touba boole woon moom waa këram mu digal ko ak nite bis bii tey nga xam ne lu ne daj na ko yóbbu nañ ko fu ne ngir gëm gu mu gëm sunu borom tabaraka wa taala nekk résistant di doxal non violence nga xam ne xeex bi muy xeexal islam tey jii màggal gii ci fukki lu tolloog fanweeri fan lu mat juróomi million danañ fi daje incha allahu ku mën a dajale juróom juróomi million ci barab te ci sa xalima ak sa xam-xam boo xam ne jaarale nga ko ci sa xalima mën a am loolu itam war naa bokk ci laaj yi may laaj kon Cheikh Mahamadou Moustapha laaj bi ma jëmoon rek bi dogale ma mooy bu indiwul woon xaadimul Moustapha Touba rakkam yu baax yi doxale ci ni ñu war a doxale tàmbale Cheikh Mamadou Fadil ba ci sëñ Muntaxa kon tey Touba nu muy mel alhamdulilah loolu kon wane ne euh, ku fonk Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la ku yàlla barkeelub liggéeyam la ku ànd ak ay kilifa yu baax yoo xam ne ñoo ko jàppale la mu tàmbalee ci njabootu maam maaram ba ci ñu baax ñi fi nekk ñépp feeñ fi te kenn ku ne sa jëf des ci loolu marqué tey yoon wi ba yoon wi mel nii ñu ànd ko nag ak lislaamu Sénégal bi yépp kon ni ñuy itam képp koo xam ne umal islaamiya bi yépp ci nga bokk di nuyu waa réew mi waa Sénégal yëpp ndax noo bokk réew mi te mën na koo séddoo kon bis bii tey dëkk bi nga xam ne moom la gënoon a bëgg euh, colonialiste bi ak waxtu jamono may faral di wax ne ca lu jiitu yonent bi ahdul jaahiliya moo amoon bi ñu demee it ci Sénégal ci waxtu woowu nga xam ne Seexul Xadim feeñ na dafa mel ne hadul jaahiliya boobu ci Sénégal dafa dellu siwaat ñuy jël alxuraan di ko bandaane ci may ay soxna dem ba yu bare bari nañ ko waroon a defee ñu travestir ko léegi cheikhul xadim jël xalimaam jël engagement am jël pas jël ni mu fanke muhammadu rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam wane ko ci njàngaleem alhamdulilah delloo siwaat def mujaddid delloo si doomu aadama yi ci yoonu siraatal mustaqima ci arrujuu ila al usuli diinil ula delloo si leen kon alhamdulilah kon yaakaar naa ne njukkeel gi ñu ko amel bari na lool mu sanc dëkk bi bëggoon ko lool waaye nag noonu mu demee ci Muhammad rasulullah ak euh, ni mu demee ci fonk sa bopp xam sa bopp tubaab bi dogu ci gàllankoor nu not ñu noteel googu sax tey la gën a tar te danaa ci egsi mu fexe ba def tawakkul wàkkilu ci suñu borom tabaraka wa taala wane tawxiidam wone ni mu mel ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bañ loola am teg ko ci fulla ak fayda ak ci saratal mustaqim bañ yóbbu ko mu dem exil dem Gabon yàgg fa lool ñëw Mauritanie ñëw Ceyeen ñëw Njaarim fanweeri at ñett lu ko jege ñu xañ ko Touba mu ñaanoon ne sunu boroom may ko bis boo xam ne bi ko gënal mooy bis bi muy dajeeg moom allahuma ijal uh, nu mu koy waxe ayaati uh, uh, allahuma ijal xayra ayaami yowma alqaaka allahuma ijal xayra ayaami yowma alqaaka Euh, bu ñuy wax ci moom euh, aaya yu ba xasaayit yu bare euh, yu bare bari day daje ci suñ bopp day fenqaloo léegi suñu borom defal ko bis boobu muy bis bii nga xam ne ci la financé woon tey Touba almaxrusa muy bis bi ko gënal kon alhamdulilah bis boobu la ñuy màggal tey mis bis bu am solo ñun nag ñu koy màggalee fii moo di dañuy woo ku mel ne sëñ Gana Messere sëñ Boussora Samb sëñ Imam jàng ak boroom xam-xam yu rafet yi le ñu ñëw xam sëriñ bi lool gëm ko lool di ko liggéeyal lool bëgg ko lool ñëw ci xam-xam bu sel ñëw di ko yendoo waxtaane ba ngoon jot ñu tëj ko ñu demaat ba déwén kenn ko ne man cee duy loo xam ne da ko mën a jëriñoo ba at mi dellu si ma leen ciy sant bu baax a baax a baax di sant sëñ Gane Mesere sëñ sëñ Boussa Samb sëñ Imam Niang sëñ Abib Gaye di sant sëñ Ousmane Lo ak ñi ci wax ñëpp di sant sunu xarit bi di sëñ Xaadim bu baax a baax euh, ak euh, sëñ Niang mii nga xam ne moom itam ñoo bokkoon di jàng ci bitim réew ñoo leen di sant bu baax a baax di sant njaboot sëñ Tuubaa yëpp Euh, léegi la fi sëñ Bass Abdou Khadir jóge démb ak barki démb sëñ Cheikh moom sëñ Abdou Khadir ñëw na fi sëñ Moustapha moom sëñ Abdou Khadir ñëw na fi sëñ Falloum sëñ Moustapha Abdou ñëw na fi ak bokk yëpp laal di sant bu baax sëñ Mourtala moom Cheikh Mamadou Fadel moom itam ak sëñ Mamor Sam di leen seen seen taxawaay ak sëñ abibu moom Cheikh Mamadou Fadel ak bokk yëpp bu ñu dañuy jaar ci ñoom rek waaye bu ñu jaaree ci ñoom rek sant nañ bokk yëpp. kon nag xam naa rek li jaxewoon joxe tey ci thème bi moo doonoon euh, jikko yu rafet yi li fi Sëriñ Tuubaa bàyyi mag ña bàyyi ko fi nañ leen delloo siwaat taddi ci roy nañ leen delloo siwaat jikko yooyu taddi ko roy ndax kenn ku ne gis na jamono ni mu jaxasoo wax dëgg yàlla dafa mel ne lu bon a xew dafa mel dañoo dogg ci xewi lu baax wala xamuñu lu baax foofu la ñu egg mu mel ne kon day jar dellu siwaat ginnaaw xoolaat suñu bopp def introspection maanaam kenn ku ne wut ay xalaat ay laaj loo laaj sa bopp ba xam foo toll ci sa diggante ak réew mi foo tollu ci sa diggante ak lislaam foo tollu ci ak sa diggante ak ndigali sëñ Tuubaa yi ak foo tollu ci euh, lu baax loolu lañ war a foofu lañ toll ci ci questionnement boobu mu mel ne nag li gën a yomb rek mooy te ñëpp jëm ji te am réew des leen di aar leen di aar ndax ki xamul dama ci joxe exemple rek bu guddee télévision yi boo leen ubbee kenn ku ne yaa ngi jëkkante ci di wax loo xam ne lu juunu la te ay mag lañ doon te kenn ku ne xam na sensibilité bi télévision am ak média yi bu ko defee gone yu ndaw yi yi nga xam ne dañ koy seetaan ah dégg ay mag yoo xam ne dañoo war a yor réew mi ëllëg wala ñu bëgg ko yor wala ñu nekk ci ñi ko yor di wax loo xam ne ñañ waroon a yar buñ déggee loolu sax ñoom dañ koy xeeb maanaam bu ko defee la ñuy waxante di juunu juunu lool loolu am njàngale lenn ci njàngale mu baax nekku ca bu ko defee loolu fa mu mooy ci tasaare ak ci yàq rek lay jëm ndax xale euh, ndab la loo xam ne loo ci def rek moom nga ciy fekk bu bët setee euh, lañu lañ doon gis ca guddi ga la yendoo foyee bu ko defee nag loolu dugg ci seen bopp ndànk-ndànk di ko dugg di ci dugg ba benn bis lay génn sous forme de refoulement waaw nga xam ne fekk euh, ba baa ngi koy enregistré mi ngi mel ne rek publicité dañuy fekk produit yi léeg-léeg boo xam ne bu ñàkk solo ñu defal ko emballage bu rafet wan la ko ci angle bu rafet nga xool ko bis boo demee fekk dugg na ci sa bopp di ca nelaw mën naa am ñaari weer ñetti weer ba at da ngay dem fenn rek gis ko rek mu ne ba xër ñett yeewu yow xamoo kañ la ci nelawoon nga daal di ne jox ma lee jënd ko fekk loola baaxul loolu moo xew léegi kon delloo siwaat ci ndigalal sëriñ Tuubaa yi ndax bind na bàyyi fi boroom xam-xam yaa ngi nii bis bu nañu jaar ci sëñ Tuubaa nee na sëñ Tuubaa nee na sëñ Tuubaa nee na la mu wax lépp ku ci bëgg a xam dara ah, boo dégloo danga nga dégg ndax bind na bàyyi fi lépp lu mu waroon a wax rek bind na bàyyi fi kay bind ba résumé loo xam ne ay toni ton la ci lu fi nekkoon booba ordinateur amagul mu jëriñ ñu ordinateur ndax dafa résumé woon lu bare bare ba pare woy ko mu neex a mokkal neex a dugal ci bopp ko ba ordinateur ñëw loola ñeneen nekk fi di ko leeral doomu aadama yi nga xam ne boo amee sa ordinateur man nga caa jàng ba gën a leerlu lépp dajale muy nooru naa ala noor kon léegi yaakaar naa ne kumpa mënatul am ci sëriñ bi kon nag nan ko roy roy ko ci wàll yu baree bare bare ci bëgg suñu réew maanaam fonk suñu bopp xam suñu bopp ndax xam boppam rek moo taxoon euh, collaboré wul ak euh, colonialiste bi waaw ndax bi mu bi ñu ko bi ñu ko jëkkee proposé ne ko ñëwal ci buur bi nangam nangam dafa wax ne benn buur amul bu dul suñu borom tabaraka wa taala léegi itam yaakaar naa ne bu ko neexoon fa ñu baree bari jaar ba demuñu bu ko neexoon bu jaaroon foofa du dem kon euh, wane ne ne dignité doomu aadama bi da ci bokk ci sàkkul ko boppam ginnaaw bokk ko ci yàlla cëralee ay ko yoo xam ne euh, lu mu ca teg rek dana mën am dignité waaye nag des koy sabablu di ko sàkku di ko ñeme kon amoon na jom jom jooju moo ko yóbbu ci wàllu googu ndax julli ga ca géej ga wax dëgg yàlla boo koy seet la ci ëpp jom la la ci ëpp jom lay doon nga seet euh, ngoram euh, gore weesuwul la nga yéene sa bopp nga yéene ko humanité bi yépp yaa maalikal mulki yaa man jàllaan xawadin irham jameel wara yaa hadin wara rada ku yéene ñëpp jàmm dafa mel ne sax da caa boole sax ña nga xam ne ñoo ko yóbbu woon xañ ko nekkuk tubaax jéem koo xañ taalibe yi bundu xataal ko dafa mel ne sax ñooñu dugg nañ ci biir ñaan gi boobu euh, générosité daawee su ko tàmmee su ko woon a gis ci ku mel noonu waaw kon Serigne Touba yaakaar naa ne bàyyi na fi loo xam ne ku ko roy danga ci mën a jariñu bu baax réew mi maanaam li mu bàyyi ci turaasam waxuma sax Sénégal mais àddina bépp mën nañ cee jariñ ndax lépp lu baax la ñëpp la ambal lu baax man yaakaar naa ne su ma déggee kuy critiquer wala kuy def dara damaa defe ne dafa jëlul temps wu jàng Serigne Touba waaw ndax moom boo ko liiree doo ko mën a bañ ndax lépp lu mu yéene boppam boole na la ci biir boole na la ci kon nag nañ ko gëstu ñun ñi nga xam ne ñun la war. nu jéem koo jàngale ci jàngale wu rafet woo xam ne dañuy sàmmante ak la waxoon nu koy wax lam daan def nu koy nettali nit ñi di ci mën a roy bu ko defee tayit fu fi waaye nekk di ko tuddoo kenn bañ koo yëpp jaare ko ci yow waaw na muy na muy amee nag mooy nga teg sa bopp ci siraatal mustaqim waaw lam daan def nga koy roy nii sëriñ tu sëriñ Saaliwu doon wax naan seytaane ma nga tàmbalee ci naan sëñ bi kenn mënut a mel ne moom kenn mënu koo roy loola nee na waxi seytaane rek la waaye roy nit dana taxa niru nit ndax daa roy yonent bi ba am lii tey bu ko royul woon ci roy la ko jaare ah, ci jëf ci xalaat ci yéene ci jikko ci makaarimul axlaax yooyee mu amoon ñu fexe ba denc loola làmbooyu makaarimul axlaax yooyu loola kon ci la amee lii tey ngeen gis ngeen ko fu ne fépp fees tey te li muy fees fees beneen question lay laaj moo di noo bokk réew mi noo ngi def loo xam ne kenn terewu ko amul benn interdiction boo xam ne yëgu bokk te yaakaar naa ne pandémie bi am ci Sénégal bi am ci réew mi ci distanciation yi ñu ngi koy respecté wax bi may wax nii moo tax ma tekki samay masque te gisuma ñu tere am ndaje te man bi may nekk ci administration la ma xamoon moo di village centre priorité économique yi village centre lañ koy jox ak euh, chefferie religieuse ak village frontalier cib dëkk dañ leen di juqi ndax yooyu ñoo gën a sensible ñu leen di aar ci wàll gune dafa yóbbu gën leen a suqali ci wàllu développement ndax village centre am na dëkk ya ko wër yëpp bu ñëwee naane si foofa développement mën naa am bu ko defee chefferie religieuse yi fi nga xam ne sëriñ si dañ fa nekk mbooloo dañ fay daje moo xam ne wax dëgg yàlla day bari bari goo xam ne léeg-léeg day ëpp day jéggi dayo te mbooloo fu ñu daje dañ leen a war a aar village frontalier yi itam dañ leen defal noo xam ne dañuy gën a naat réew ma nga xam ne moom lañ dendal pour ñu bañ faa indi ay fraude pour ñu bañ faa def leneen wala ñu bañ leen a ñee pour ñu mën a des seen réew xam ne seen réew kat fonk na leen waaw ma gis euh, bis bu mel ne tey di bisu xaadimu rasul muy mu dellu si woon ak mbooloo mi fi daje ni mu baree ci àddina ni mu baree gisuma fi benn benn force de sécurité bu leen war a aar jàpp naa ne te nu am droit ci réew bi wax dëgg yàlla wala boog xëy na bu nu ci boolewul itam foofu itam kéemaanu sëñ Tuubaa dafay feeñ ndax lu baax la itam loolu man critiqué wu ma ko remarque bu may def la rek di ko laaj te yaakaar naa ne am naa droit laaj ci lu mel noonu ndax ci réew mi la bokk waaye nag critiqué wu ma ko li tax critiqué wu ma ko sunu sang xaadimul Moustapha jox nañu ay jikko yoo xam ne nàmpatal nañu ci Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jox ñu ay jikko makaarimul axlaaq ba nga xam ne la gën a bon ci doomu aadama mooy ak rëy akuk naafiq ak di wax lu dul am loola mu fexe ba dindi ko ci ñun lay rëy woyofal woyof gi nekk ci ñun waaw ñu woyof toy loola mu def jikko yooyu ba nga xam ne ay nit kenn ku ne murit boo gis dana yéene morom ja lu ëpp la mu yéene boppam ba tax na loola ji jàmm jàmm joojee fekk nu fii nu tey nekk tey ba ay junni junni doomu aadama ñi ngi Tuubaa waaye doo gis xat gu damm kenn du ca laal morom ja donte sécurité boobu kenn abaluñu ko wala kenn jëmewu ko ci ñun waaye sécurité amaani laa moo gën lépp mooy sécurité suñu borom tabaraka wa taala te Serigne Touba fexe na ba nu am sécurité boobu kon daf ñuy jàngal ne nekkete nun kët ah euh, mën na noo demal suñu bopp ci wàllu gu ne buñ ci royee ci domaine bu ne rek danañ ci mën a dem ak suñu bopp buñ toppee mbirum agriculture li ñuy wax autarcie yi danañ ko mën a am di bay loo xam ne danañu doy sëkk ci wàll googu ci joxoñu xaadimu rasul ci joxoñu xaadimu rasul dañu wan ne bu nu defee tawakkul wéeru ci suñu borom tabaraka wa taala dara duñu jom waaw ndax luy jikko yu rafet def na ko ci ñun wan nañu itam ne cohabitation bi ne képp koo xam ne euh, ku baax la nee na lépp ko ku bëgg a bokk ak man rek baaxal ndax kenn ku ne la nga baaxle la bokk ak yow fa kullu wirdin yuridul murida li la wala yaxida sawaun tama ila aljilali aw intama li ahmad atijani aw li siwahuma min al aqtabi id kulluhum qataan ala thawab ki wax loolu cohabitation yaaxalu ko def na cohabitation bi bu baax a baax suñu borom fekk si na ko ci wàllu googu ba nga xam ne am na sécurité wax dëgg yàlla waaye mbooloo mu toll nii fu ñu nekk te xat damul te xaddu damul ndax dañoo bokk ku ñu yaakaar muy Serigne Touba bokk lislaam ah mu indi fi jàmm ju dina béy yoo xam ne lii jàngat la ci loo xam ne man sax dama cee xaw bépp ndax am naa am naa assurance ne ndekete ku nu bàyyi danañ dem ak suñu bopp sant yàlla bu baax a baax bis bu ne Serigne Touba wane ay kiimaan ci wàllu boobu xaddu dam kenn ko ne yaa ngi yàkkawliku gis sa moroom teral ko saafonteeg moom ñaanal ko foofu na fa na histoire di amee aw ay du fa am kon noonu ciy sant bu baax a baax ci wàllu boobu bu baax a baax te gën di sant question bi nag du lu mën a xari waaye dama ko posé question yaakaar naa ni danañ ma répondre waaye nag du lu ma naqarlu ndax am njàngale ci la addina man duma ci gis benn doomu aadama bu ma te jëriñ dara mbir yu xew dara itam loo xam ne mënumaa jëriñ ndax dama koy jàngat gëstu ko fokk mu jëriñ ma tam dara dana ñëw mel ne ah, dafa lay wàññi dara fekk dafa lay jëriñ inamaa woon suru sulam fa ida faraxta fansab nag wa ila rabbika farxab mbir day ñëw jafe lool fekk yomb te lay indi tey lii bu amul woon man dama am remarque boo xam ne danaa xam ne ndekete ay junni junni doomu aadama mën na noo daje oto yaa ngay daw saret yaa ngay daw ñee ngay fekkaloo fee léeg-léeg fëlante kenn ku ne ah baal ma nangam nangam ba pare lépp nekk ci jàmm ñu ñëw ak jàmm delloo jàmm ci jàmm kon loolu ku ci jàngat da xam ne kon ñun defaral nañu suñu àddina ndax war nañu yoon wi war nañu yoon wi ndax ñaari yëfa fi ne sëñ Modou Moustapha bi ko soxna may wax na ko soxna may ne ko soxna si xanaa xamoo ne àddina dafa am wàll alaaxira am wàll lu ci manqué rek day mel na ci borom la ñun nag sëñ Touba war nañu yoon woo xam ne mel na ne dara du ci manqué ndax danañ jëfandikoo suñu xalaat ci nite yéenante nañ jàmm nangu na noo liggéey nangu na noo jaamu yàlla te mbir yi foofu rek la nekk nan liggéey jaamu yàlla dunde suñu ñaq di moytu lu lu di seet lu xalaal lu koy sàpp waxtu wu ne fu lu nekk kon loolu domaine boo seet rek buñ ca doxalee noonu ndekete yoo kon nun danañ mën a am suñu xuriyal iqtisaad yi muy seen indépendance économique mën nañ koo am te kenn du ci wàll si kenn du ci def dara lu mën a nekk la daa tolloo nag fokk ñu tënku ci état parce que y a les textes textes yooyu mais ci textes yooyu aussi laay interroger lu tax euh, fii nu toog lu nu aar tam war te ñu bind ko ci constitution bi loola damay laaj rek lu tax amul waaye nag maa ngi ciy bég loolu ndax tax na ma jàngat ci yu baree bari xam ne ndekete Serigne Touba amul morom ak mag ñu baax ñu fi nekkoon waaw maam Sidi Alaaji Maalik maam Limaamu Laay Cheikh Ibrahima ñes moom itam mu am mérite lool lool waaw conquérir àddina bi fu ne kenn ku ne ci ñoom daf la la war tey loolee nag ñu dogg ci am ñoo xam ne dañoo dogg ci dindi ko fi mais bis bu fi bis bu fi jógee rek réew mi jiit tali raam dafa jég jóge ci ñag bi jëm ci ñag bi luy raam daa jóge ci ñag bi jëm ci ñag ku seetlu la xewoon ñu tolloog fukki at ca gannaaw rek nga gëj Sénégal boo ñëwee da ngay réer ndax lépp loo xam ne lu baax la woon xewil nañ ko ku baax itam boo baaxee am jom bëgg sa bopp am sa fulla jàpp nañ ne nitu way waye boo dëngee sa xel nekk ci safaan ba wóodeet lañ lay def defal post ci internet bi rek nga peese ko bokk ay baat lii nga wax ci jàmm lee nga wax ci ay li nga wax jàmm kenn du ko xool li nga wax ay mooy dem ba dellu si ba Euh, mu am nag ay force tapi dans l'ombre yoo xam ne dañuy waxtaan guddi duñu nelaw réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent lañ wax ci musulman mais une minorité boo xam ne ñoo yëgoo ñoom ñoo yëgoo te bu ñu bu seen pexe sottee ci suñu tànk la jëm duñu nelaw guddi duñu nelaw bëccëg nga ca média yi di leen financer financement yu am solo yoo xam ne kenn yëgu ko ñu ñuy toog di nelaw rek kenn yëgu ko ñu koy dugal par ndànk-ndànk par ndànk-ndànk colonisation bi ci gën a bon mooy bi ñu jaayare ci sa culture yàq ko ndax boo ñàkkee sa culture rek nekkatoo ñu jaare ko sa diine ndax mën nañoo wax ne ci pan aspect aspect culturel la foofu waaye diine day essentiel ci doomu aadama ñu jaare ko foofu ndànk-ndànk di ko dindi di ko ronxat di ko ronxat di ko ronxat ba nga dem ba yow mi ñu koy ronxat sax doo doo yëg ne ñu ngi koy ronxat parce que nañ koy defee dafa xereñ ci looy gis bis bu ne la looy dégg bis bu ne la looy dund bis bu ne la dañ la koy wëral fu ne ci li ngay jënd ak li ngay jaay ak fépp dañ la ko fa jaarale ba am pexe dootu am ndax ak fiir la goo xam ne foog nga tàbbi ci bootul kon dafa jaar ñu jël conscience prise de conscience ci wàllu googu ñooñu nag bañuñu ci dara ñoom ca ña lañ nekk loolu moo indi résultat bi tey moo indi résultat bi tey moo ko indi ñuy tëdd di nelaw rek yow jot na moo di xam la fi mag ñi bàyyi woon xam ne nit ki bu fekkente ne euh, sa la nga daan wax saw làkk xeeb tubaab bi rawatina français bi il faut le dire colonialiste bi fekk doomu aadama ne yow nga ñëw jël ngànnaay ak grâce à l'arme à de l'arme à sax laay wax nga euh, fekk doomu aadama nga ñatagal leen toroxal leen wala ne leen maa leen gën fi ngeen nekk sax maa moom te in ardallahi waasia yàlla moo leen fa teg bu ko defee nga not leen indi esclavage jaay jàmm ku ci ku ci ku ci ku ci feebar sax am xar la koy gënal da nga koy sànni ci géej gi ci seen commerce triangulaire boobu ñu defoon dégg nga def jaay jàmm def ab ginnaaw bi ñu def impérialisme bi mu ñëw ñu def colonia colonisation bi ñëw colonialisme mu ñëw waaw li ñu fi faagaagal ci doomu aadama mais ku mel noonu bis boo demee ne indépendance bu fekkee indépendance bi dëgg la mais say héros suñu mag ñi lu tee ñu delloo si leen wi ci boppam nga jàngale la langue nationale làkku jàmbur mënoo cee exprimer noo xam ne na nam waroon a mën a nekk la mënut a nekk ndax euh, la ca langue ba day déteindre ci sa waaw day déteindre day feeñ ci sa jikko la ca langue ba da ciy feeñ ñi jàng français ngi xam naa ci dara ñi jàng arabe ngi nii bu fekkente ne dañ laa gëmloo la langue étrangère la mais yow nekkatoo ba pare jafe-jafe bi mooy njàng mi day jafe ci yow ndax ci làkku jàmbur nga bëgg jàng ni ñuy jànge làkk waa ba noppi jàng xam-xam ba ci biir loolu ay jafe-jafe la danga ko war a jàng ci sa bopp nga dend ak français bi def nañ foofu moom ci làngam lañ koy jàngal yow nag dañ laa jàngal làngam ba noppi dool leen a boole ngeen jàngandoo na leen leen di jàngal waaw euh, dafa am lu ci feeñ Cheikh Anta Diop waxoon na ko nee na jaam bi ñu goreel li ci ëpp dañ koo yàgg bu nduxatal ba nga xam ne bis buñ ko goreelee ne ko demal bu génnee day ñëwaat sur le pas de la porte toogaat ndax xamul fu jëm fëggaat koŋ-koŋ ah fi ñu ko defoon jaam rek lay xam bu ko defee ka koy def jaam du def ci moom ay jikko yu rafet du ko ca def te loolu day mel ne ñàkkee ñaare la kon ku dem ba am sa indépendance ah danga war a fonk sa bopp. c'est la négation de soi ñu da ngay def table rase jàppal ne gawma dara jàppal ne awma te suñu borom bind la tabaraka wa taala ah ci raisonnement yooyu fexe ba nga dem boo dellusee li nga war a def mooy léegi bàyyee nañ la sa bopp ëllëg nga dellusiwaat ca yëfi maam ya liggéeyu maam ya mais da ngay nekk tubaab bu ñuul kub boo xam ne eh, da ngay sax ña nga xam ne ku jàngul tubaab rek danga koy xeeb fekk ca France munoo lakka lakka lakk bañ teg la fenn buñ nangoo nga toog sëñ bu saat gis nga ko buñ nangoo toogandoo ak yow rek dafa xat heure ba heure de pointe lay doon te dafa xat waaw mais bu bu dee bu libéré rek duñ nangoo tax ak yow kon yu mel noonu dafay bari ba léegi ku mel ne Faidherbe bi ñaata la faagaagal ci Sénégal ah turam a nga fee ba léegi te bari na bari na ak yi exemple yi kenn mënu ko lim bari na te Sénégal li ko yàq mooy boo waxee léegi tooñkat yi dañoo gën a bari kon ku ragal a wax doo wax lu am njëriñ ku ragal a wax rek da noppi kon suñu responsabilité mooy bu ñu gisee loo xam ne dafay raam jóge ci ñag bi te bu ñëwee yàq faagaagal islam bi faagaagal suñu société faagaagal suñu dignité kon képp koo xam ne xam nga loolu war ngaa jël kàddu bu fekkente ne war nga caa wax nga wax ca waaye boo ragalee wax boo ku wax ñu saaga loolu sax mooy li ma ci ci liñ njëkkoon a wax la dañ koy financé dañuy fexe ba ku wax lu baax ñu fexe ñu saaga la bu ko defee kenn dootu nango nango wax lu baax bu ko defee yëf yi na sax na bu kenn waxatul kenn ku ne du subir yëf yi na sax na na sax am na foofu lañ koy jaaree ci média yi saaga ku wax ñu saaga ah. bu ko defee diviser pour régner fenqale kee fenqale kee fenqale kee mais euh, ñun jullit yi ñun ñëpp benn lañu jullit ah jullitay morom ja mooy mooy mbokkam bu ko defee dañ naan la ah ya murid yi kat ne tijaan yi fee nangam nangam fekk ña koy alimenté du murid yi du tijaan yi duñu murid duñu tijaan du ñeneen ñeneen la feneen la jóge waaw bu ko defee loolu dañuy ñaan appel pour ñu gën cee am euh, xalaat gën cee jóg ci wàll googu ngir ñu mu gën a mën a defar suñu diine gën a mën a defar suñu société waaw defar suñu société parce que yàq gi bari na loo defar sa kër yendoo ko defar bu jant soo lépp lépp mi ngi mel ne kuy tricoté bu jant soow ñaari seconde yi télévision ya muy xool rek ñoo dina ñoo dina buum nga lépp loo ràbboon tiri nañu encadrement dafa war a am dañoo war a encadrer waaye nag alhamdulilah rabbil alamin yàlla def na boroom xam-xam yi ñu ngi ci waaw noppalu wuñu guddi noppalu wuñu bëccëg donte li ngeen di wax kenn nit rek dana ko jariñ jar na li sëñ suñu sang bi sëñ euh, Mourtala waxoon dañ demee Amérique am ku jóge fu sori jël avion ñëw tuub mu ne lii rek jaroon na jóge Sénégal waaw jëmm ji tuub rek jaroon na jóge Sénégal buñ ko jàppee noonu yaakaar naa ne am ci fulla am ci fayda jéem cee yor njaboot gi parce que njaboot gi c'est pas évident da ngay yar ba pare ñu yàq ko loolu moom mu ne su ca mucc waaye ñuy ñaan kenn ku ne def sa devoir di way bay sa sa waar ci toolu Serigne Touba bi ci toolu l'islam bi waaw nga xam ne dañu ko bokkandoog euh, sunu ay euh, ñoo xam ne noo bokk l'islam bi kon alhamdulilahi rabil alamin loolu ñu fonkante kenn ku ne warmal sa moroom fas yéene kenn du yab sëñ tubaa ci sa jëmm waaw fas yéene itam la sëriñ tubaa waxoon kenn ku ne jéem a bokk ak moom ndax nee na kenn ku ne la nga baax la nga baax le la la nga bokk la nga baax le rek la bokk ak yow kon bis bi ni ko sëriñ Mouhamadou Moustapha nii la ko daan defee ah, bu mbooloo masaan am ak fu masaan amee waxtu wu ne day ñëw dajale mbooloo ma boo dara xewee ci àddina noonu la koy réglé woo mbooloo ma waxtaan ci ak ñoom seet na mu gën a rafete mu waxe ko na tënk ko nag ci lislaam tënk ko ci dénkaane yi seexul xadim ci ndigalam di moytuloo nit ñi safaan ba guddi ak bëccëg wax ak ñoom wax ci nite ba bu ñu fa jógee kenn ku ne mën caa jëriñu noonu la daan def kon euh, bis bi daal mu ngaw ñoo ngi leen di sant bu baax di sant képp koo xam ne jóge nga fa nga ne woon ñëw fi xam nañ ne jamono naqari na wax dëgg yàlla euh, lool Sénégal domaine yëpp fépp naqari loolu àddina bépp sax laay wax lu yàlla def la kon alhamdulilah ñoo ngi leen di ñaan kenn ku ne euh, sa jéego yi la yëkkati woon ba nga ñëw fi la tax nga ñëwoon fi suñu borom jox la loola muy aw yiw yàlla may la gudd fan ak wér ak tuyaaba te yàlla dimbali ñu euh, ñu mën a gën a jàpp ci njaboot gi bu baax a baax a baax ndax euh, jamono jii nga xam ne ci la internet génn yaakaar naa ne bi mu génneeg léegi lu baree bari yàq na fi yàqu na fi waaye nag mënees na ca def lu baax itam ndax ñun jàpp naa ne suñ jamono bu fekkoonte ne booba amoon nañ ko ñun ñëpp ay sawaan la ñu doon ndax loo xam ne loo ci seet man koo gis fi saa si ci minute bi seconde bi yaakaar naa ne kon dama koy méngalee ko xal aw xal mën nga cee togg waaye rek mën nga cee lakk waaye nag foog nga jariñoo xel bi foog nga am volonté bëgg lu baax jariñoo xel bi ndax bu fekkee jëriñoo sam xel fab sa loxo ne ko diit ci ciw xal da ngay lakk waaye nag boo wutee kudd jàppee ko ko boyal wala nga boyal mën nga cee tàngal sam ndox bu baax a baax wala nga togg ci ba mu jëriñ la te loolu xel a koy joxe kon nag a ah, ak mu ne nii lañ koy defee euh, euh, di ko rafet rafetlu seen teewaay di rafetlu seen cofeel di sant dawaayir yi fi teew yëpp bàyyiwuñ benn muy suñ dawaayir mañ ma nooree di ak daayira soppe yi ak bokk yi fi teew yëpp ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaanu yàgg koo def te tuyaaba yi suñ boroom euh, ñëw ba ci sunu mu ñëw ba ci ñun waaw ñu mën cee jariñu bu baax a baax te sunu boroom yokkal ñu leeru cheikhul xadim ak waa këram ya yu tedd ya kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñu yàgg koo def ci darajay xadimu Mustafa ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jërëjëf kàddu yooyu moo bàyyi ko ci sëriñ Cheikh Mbacke sëriñ Aliou moom Cheikh Mouhamadul Moustapha sëriñ bi yàlla la fekk déwén ak at yu bari ci barkeb Cheikh Mouhamadul Moustapha xol yépp set nañ wax dëgg yàlla coono yi nga toggoo ci bis bi wax dëgg yàlla jar na ko lool ngir su la neexoon nga dugg ci sab saal wax dëgg yàlla di recevoir ñii di bàyyi ñii bàyyi ñépp ci biti waaye xam nga ne sa maam ju baax di Cheikh Mamadou Moustapha nii la daan dund la bis bi daan génn di saafante ak bokk yi ak taalibe yi ak wëllëre yi ak am di jàmm yi ak di dundal bis bi ci tax si moo bi sunnati loolu kenn ku nekk gis na ni noonu nga koy dundal waxtu wu nekk loolu ñaan yàlla na ko dund téeméer at di barke Cheikh Mamadou Moustapha dañ ci yokk sëñ Bousra bisimilah <laughs> tawati xanaa du gëlee sant rek ndax euh, sëñ Bousra mii doon waxtaan tey sëñ Gana Messere yàgg na ko def waaye sëñ Bousra biñ ko xamee ba léegi Italie dañ njëkk a tase yàgg na ëpp na fanweeri at waaye na ko xamee woon da ngay da ngay mën a waat ne saa yoo ko gisatee rek mbaax ga daa yokk loolu ngay mën a waat saa yoo ko rek mbaax ga daa mu liggéeyal ci sëñ tubaa ci toolu sëñ tubaab bi liggéey bu kenn mësul gis ma koy sant bu baax a baax ci wàll googu muy xarit di wëlëre waaw di sañ sëñ bokkar saw bi baax a baax sant sëñ xaadim sëñ Ousmane Lo ñii nga xam ne sëñ Bada Camara magi kër gi ñoom ñëpp sëñ am topp bu ma ko limee sax waaye bu ma jaaree ci yéen rek xamal ne ma kenn ma kenn sant naa sëñ Cheikh Lo ak waa ma noonu Noreyni di ñaan fu ngeen toll ngeen ñaanal sëñ ama Aliou bu baax nit ku baax la woon waaw ngeen ñaanal ko ak njabootu sëñ Aliou ki sant naa leen bu baax a baax a baax njabootu sëñ Aliou ki waaw ndax dégguma leen ci genn njaaxum te jamono neexul waaw te lu baax rek nga leen di dégg jàpp seen njàmbur nekk ca la leen seen bàyyi bàyyi loon ak la leen seen maam baaxoo na bàyyeel doomu aadama yi waaw ca lañ nekk kon nag maa ngi sant njaboot sëñ euh, Aliou gépp jiite sëñ Modou Moustapha sëñ Moustapha teg ci sëñ Xaadim sëñ Xaadim Aliou ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ko di leen jël seere ci loolu kon maa ngi sant bokk yi wëllëre yi xarit yi am ngi jàmm yi dawaayir yi nga xam ne ñoo féete ci man ak daayira soppe yi nga xam ne bari nañ lool lool lool lool ci Sénégal nga xam ne ci fukki région yeeg ñeent yëpp am nañ fay daayira waaye am nañu itam yeneen daayira soppe yoo xam ne wax dëgg yàlla mën nu leen a fay waaye nag ñoo ngi leen di bàyyi ak suñu borom tabaraka wa la mi nga xam ne moo am pay yàlla na leen fay ci daraja yi xaadimu so kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen def ñaan sëñ bi jërëjëf na ñëpp talal te wax amin na ñëpp talal amin amin amin amin amin amin amin amin allahumma amin amin ya rabbal amin